ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw auzu billahi min ashitaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bisimillah inna waliyallah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokk internet yi nga xamante ni yéenay teewlu suñu jotaayu xam-xam bii ci biir mhm. ñu amaan mbégte tey dellusiwaat ci suñu jotaay bi nga xam ne moom la leen fas yéene dégtal ak di ci ànd ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Moustapha Dieye bëgg a waxtaane waat rek ak moom lenn itam jëm ci wax dëgg yàlla tolluwaayu jamono mhm. lenn itam jëm ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla mooy euh, xew-xew yi fi am waaye itam mhm. li cëpp itam jëm li nga xamante mooy ni doomu aadama yi di dunde ci biir kër yi ci ni mu tënkoo itam ci kaw lislaam ak ci kaw itam xam-xam ni ñuy def nag mooy nuyu ko siyaar ko jox ko wàccuwaay wépp itam bàyyi ko mu nuyoog àdduna wërngal këpp ndax soppe yeeg am di jàmm yeeg xarit yeeg wëllëre yi nga xamante saa su ne seen yitte seen bëgg seenu xel ak seenu dal yépp mooy jàkkaarloog jëmm ji di Cheikh Moustapha Dieye ñu wax la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Moustapha waaleykum salaam wa auzubillah bismillah inna waliyallah laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa yàlla rek tey dëkk julli ci yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di sant waajur yi di mhm. leen ñaanal yàlla yërëm leen xare leen aljanna yaatal seeni bàmmeel yokk seeni leer te wayefal suuf ci seen kaw allahumma di ko ñaanal bépp néew bu tëdd ci biir suuf di ñaanal ñu tëdd ci hôpital yi yàlla na leen yàlla defal wér mhm. yàlla yàlla fëgg seeni cër ak ñi tëdd ci biir kër yi te tawat ak sax ñi koy doxantoo mhm. yàlla na yàlla xettali dimbaleeti ñi caabi féete ginnaaw ndax duma dañ di ko wax mhm. am na ku demul fa ñuy tëj ak di tijji waaye moom yëg na ni ni mo fa mhm. ci fitna ci musiba ci alali jaamuram ju yàqu mhm. ba ci sax biiri mbokkam ndax léeg-léeg say mbiiri mbokk daan la tëj te doo ko yëg xatal la waxal la lu tax ba mënatoo génn ci mbedd mi ba mënatoo toog fenn ba mënatoo jëflante kenn yooyu yépp nag nattuk sunu borom la mhm. yàlla na ko yàlla teggee moo tax di ziyaar ñëpp macha di baalu xaq ñépp ci weer wu tedd wii nu jublu mhm. di weer wu sell mhm. mu doon weer woo xam ni tombe sunu maam ju tedd ji yàlla wërsëge nanu ko xam ni réew mu ne bëgg na ko am àdduna bu ne bëgg nga ko am dëkk bu ne bëgg nga ko am waaye it koñ bu ne bëgg nga ko am muy sunu maam Cheikh Seydil Hadji Malick mhm. radiyallahu taala an ci téeméeri atam mhm. cent vingt deux euh, cent ans yi waaw centenaire bi waaw mhm. vingt deux ba cent vingt deux ba deux mille vingt mille vingt deux si Malick Demba yàlla yàlla yokki ay leeram te taasunu ci barkeem ak ñi mu bokk tudd ci biir suuf ci njabootam mm. ndax képp koo xam ni rek mbokkam nga ci cofeel mm-hmm. mbokkam nga ci taalibe mm-hmm. mbokkam nga ci lu mënti doon si Malick ameel nga ko njukkal mm-hmm. gëw ni sax moom ñun ñun man man nan ci moom dara ci gàttal kontraayam boobu yàlla na gën a sell. allahumma na gën a tedd. amiin na gën a am yërmandek yàlla. ndax yërmande yàlla googu mooy ba mu dëddoo tiwawoon ba léegi tiwawoon gentut. Mhm. lëndëmut. Mhm. tilimut. tayit sell gaa nga fa sëriñ bi. Mhm. kon sant nañu yàlla ñun ñu fekke. alhamdulilah téeméeri atu seex Seydil Xaaji Malick sunu maam ju tedd joo ci biir suuf. bu ci kenn waxul woon it ñun war nañ ci wax. ndax njabootu alaaji rawaan da ngay wax ci Seex Sidil Haaji Malick mhm. loolu kenn du ni waru ko fi waxe dëgg la ndax nag gàmmu ci réew mi Maodo ak Rawaan ak fi njëkk a def. njëkk a def nag laa la mhm. waaw ci réew mi. Mhm. bu nee benn njëkk a def waaw. waaw Maodo di jël xaaju kaw bi Rawaan di jël sa xaaju suuf gi. baa bu nu bañee suuf ni nu bo baa nu bokkoon nañu kaamil ba. mag ñi. di ko defee fu ne nag ca sanc aali ngom ca fu ne nag moo tax sëriñ bi xanaa xamoo ne armeelu paal maam seex Seydi Hadji Malick moo ko rëdd daan ni kun fi suul texe na waa akbar waajuru maam Cheikh Seydi xaaji Rawxaan lan fa njëkk suul nag muy soxna Awa Jéey moo waral Awa Jéey jàtti saanaan jàtti Awa Jéey moo jur Alaaji Rawxaan saanaan jur maam ma démb bi jur suma baay ndeysaan ku ma ëppale ci àllaa <laughs> jërawa kenn xamul <laughs> moo tax sëriñ bi mhm. ñu ngi ziyaaraat mhm. ahlu siyeen ziyaaraat ahlu yi mhm. ndax ñoo bokk lépp ci maam maaram ja <laughs> moo tax sëriñ bi moo tax xam sa boppa neex waaye xam say mbokkit neex yàlla na yàlla dolli nu fayal mag ñu baax ñi allahumma amiin yaa rabbal seex taala loolu lay ubbee nuyoo macha di am nag lu ma seetaan yàggul dara. Mhm. mu mu soke ma. ci xalifa général bi mhm. ci Tiwaawan. Mhm. muy wax ju rëy waaw. joo xam ni da ko wax. mu daloon ma ci Serigne Abdoul Aziz Touré bi newoon ca Fass Touré. bi ne ca Fass Touré. waxoon wax joo xam ne Serigne bi. yëgoon naa ci suma xol bi loo xam ne maag yàlla fa newoon waaye. yëkkat ga ma ca am masuma ko am ci sama dund mhm. mu dalaat ma ci sunu xalifa général bi te wax ja daante yegg seextaa la di nuyu ñépp rawatina ñi ni teewlu ci àdduna bi mhm. fu ne nag mhm. di nu ñaanal yàlla yit fu ne nag di nu di yéene yit lu ne ci àdduna ndax xam nanu ko ndax ñu ngi koy dund ak ñun <laughs> nee naa la ñu ngi koy dund ak ñun damay toog ba si yàgg rek nit indil ma mbuusi garab yoo xam ni bëggul sax may tudd turam ndeysaan yoo xam ni luy dolli kàttanu nit ndax danaan ma Moustapha nit ñi doon la soxla soo wératut mm-hmm. su sa doolee bareetut mm-hmm. soo sonnee mm-hmm. ah, kon nu nit ñi de def yàlla na ko yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla dolli wér mi ngi ci Angleterre gi di ma dégg yàlla na ko yàlla sagal te suturaal ko xam na bu baax li may wax wallaay yàlla xam na mi ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax nag ñëpp ñu ni suivre ndax xamuñu nun toll seetaa mhm. li ñuy ñëw fii naan suñu téléphone yi dafa fees dell la xaw ma nu mu toll yàlla wallaay ndeysaan loolu aw ma seen fay <laughs> moo tax su ma limee damay juum mhm. waaye maa ngi leen di ñaanal yàlla rek mhm. yàlla guddal seen fan waaye yàlla lafal leen cat lafal nu it ñu nit cat ci barke Seyduna Muhammad ba kii xaar nu catu yàlla na cate ba gallax ndiko ba ba ba kii boog laa bëgg wax waaw kay ba nërmeelu laa bëgg wax na waaw waaye moom la rek tubarkalla tubarkalla jàpp mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha ci ci ci nuyoo bu am solo boobu macha allah mm-hmm. waaye ci ndokkeel gi mm-hmm. waaye tam ci macha allah ñaan gi nga xam ne moom nga tëjee léegi wax dëgg yàlla euh, euh, nee naa nee naa ki ki nga xam ne mi ngi dëkkee jëf lu baax sax nit ñaa ngi koy catu-catu goo xamante ne fi ne bu ko ci yàlla taxawuwul euh, wax dëgg yàlla ca ndërmeelu lay mujjee waaye ñi ñuy jéem a catu ñëpp ñoom yàlla nañ yàlla nañ mujjee ca ndërmeelu ko te bàyyi ñu ndax ñun amuñu yitte Mm-hmm. amuñu soxla mm-hmm. amuñu bëgg dul jëriñ jaamu yàlla yi mm-hmm. ndax nag jaamu yàlla ci biir jaamam ñi defe naa ne mooy bunt bi nga xam ne moo gën a gaaw ci jaamu yàlla ba tax na ñun ci lañ tënku ci nga nekk tënk ci mbooleem ñi nga ànda dool ak ñëpp kon ñun itam ci loolu lañ bëgg a tënku ba yal na yàlla euh, defal ñu dégg defal ñu topp te nangu ñaan googu nga xamante ni wax nga ko waaye Cheikh Moustapha nga laal branche bu am solo muy cent ñu naan centenaire bu maam Seydi defe naa ne su ma diggante moom ak centenaire suñu maam ju baax ji ci mhm. yoof mhm. di suñu maam Seydina Limaamu Laay mhm. ba tey defe naa ñu ngi ci centenaire mi moom itamit dëppale googu dëppaloo ci centenaire u mag ñi nga xamante ne gannaaw suñu maam Cheikh Omar Foutiyou taal ñoom ñoo taxawu diine ñoo taxawu lislaam ah, ñoo taxawu yoon yi ñoo taxawu njaboot yi ba tey jii réew mi tey jii yegg fi mu yegg te seen centenaire yi daal di dëppalantee noonu ban yëg-yëg lay def ci ci ci sëñ Moustapha tey jii fi mu toll nii mi nga xam ne tey bu ñu neexee bu la neexoon tey nga toog taalibe yi ñëw siyaar si. Mm-hmm. bu la neexoon nga toog. Mm-hmm. loo bëgg taalibe yi indi ko. Mm-hmm. ndax li may wax xëy na junj nga ci tuuti dara. waaye man am naa lu ma xam du ma wax. waaye junj rek laay daal di def. dëgg la kon tey yow ban yëg-yëg ngay am ci centenaire mag ñu baax ñi nga xam ne saa su ne defe naa ni amul benn waxtaan bu nu fi waxtaan. ba jóg. te bàyyiwuñu xel mag ñi wala tudd wuñu loolu wala waxtaanee Cheikh Talla mag ñi ku leen xam dëgg. Hmm. doo def lu dul ñaanal leen yàlla. wallaahi sëriñ bi. Hmm. am benn maam limaamu lay ci réew mi. wallaahi la ci àdduna. wallaahi benn laa la wax benn. Hmm. sakk la ci àdduna. am benn maam Cheikh Ahmadul Bamba xaadim rasulillahi. sakk la. sakk gudul jeex la. est-ce que xam nga ni mag ñi am na ñoo xam ni sax ñoom ay jamono soppoon nañu seex say soppoon nañu naa Muhammad ba ba nu demee aji ji bëgguñu woon ñëwaat bi siwaat <laughs> est que du xam nga loolu jàng naa ko ci siwaar si Malick Demba mii la bokk ndeysaan di ko tedd hmm. di ku bëgg yonent bi ku topp yonent bi dem ba xam kuy yonent bi di wax ci yeneen bi lu kenn mënul dindi Abdoulaye ma si gëléem nga hmm. moo tax ma ni la hmm. <laughs> moom ku am gàmm gàmm am gàmm ku gàmmuwul am na gàmm <laughs> wallaay ndeysaan hmm. ndax li muy gàmm la xam <laughs> te nit nag looy feetu xam ko. xam ko ba noppi ku la ca dàqal feet. xam ne yow ma ko xam kenn mënu la ca raw. déedéet <laughs> waaw. ndax ki créé ak ki ñaw ba léegi du benn. Mm-hmm. <laughs> xam nga dégg nga wax jëm déedéet. ki créé ak ki ñëw ba léegi. ak ki ñëw du benn. wallaay du benn. ndaga jox la. Mm. ah du benn. déedéet <laughs> cafin wute na. waaw loolu sëriñ bi mag ñi noonu la deme demee. Mm-hmm. xoolal cër bi yàlla jox maam borom Touba. Xaadimu Mustafaa xoolal cër bi yàlla jox maam Cheikh Seydil Hadji Malick xoolal cër bi yàlla jox maam Limaamu mhm. xoolal cër bi yàlla jox maam Ibrahima euh, maam Abdullahi Niass mhm. xoolal cër ba ko yàlla jox mhm. xoolal cër bi yàlla jox ah euh, maam Boukounte imaginel sëñ Thiénaba Seck waaw xoolal xoolal yooyu cër imaginel yooyu cër rek sëriñ bi benn ndaw ci nag benn ndax li tax ndawut mooy su waxtu seen woote jotee ca yàlla mm. mooy kaay leen nu yokkaat sunu cofeel sunu digganteeg yonente bi mm. kaay leen nu dëgëralaat sunuy pas-pas mm. kaay leen nu delluwaat ci allah bi zikrillahi tan ma inul xuloob li ci doy waar mooy dandul takko rojo mm-hmm. dandul fay benn publication. déedéet duñ fay de. xalaatuñ ko te mbir yi day fees ba ëpp. <laughs> kon nga xam ni loola yéeme na. Mm-hmm. te bàyyi la xel ni mag ñi kese newuñu fi woon am na yeneen i mag yuñ fi nekk nekkaloon. Mm-hmm. xoolal barke boobu. Mm-hmm. xoolal yiw googu. xoolal loolu leen yàlla defal di rotalaat di rotalaat ba ci sët yi di rotalaat ba fii nu toll. moo tax sëriñ bi. nee naa la. yàllaa nu booleeg mag ñi mhm. nu gëm yàlla gëm ci gëmuk yàlla goo gëm ci mag ñi ndax yàlla rek la ñuy séen ci mag ñi moo tax bàyyi mag ñi moom bala yow mi ni bàyyiloo mag ñi moo gën a yomb ci ñun wallaay moo gën a yomb <laughs> te boo nu bawul woon sax ngir nu ngir naan nu bàyyi mag ñi xoolal mhm. waxal ci mag ñi lu leen neex mhm. yow la rek kese ndax boo amoon loo mën a wax sama maam wax ko amoo ko waaw kuy wax ci maami jàmbur hmm. di ko xas da amul sa maam dara rek loolu loolay wax ji rek <laughs> ba kenn du tal moo tax yooyu sëriñ bi hmm. léeg nga digg ci ay détails hmm. waaye gis nga kuy dund yàlla dëgg seex taal xam nga fan la tàmbalee sàmm sa deru morom c'est <laughs> deru morom koo xam ni bu muy juddu judduwoo ba muy am may amoo ko la mu liggéey liggéeyagoo ko taalibeem ba mu gën a ndaw la mu yor ci taalibe yoo xam ni yàlla ak bi lan ca yor yoroo ca xaaj xajatam hmm. yàlla xam na ni boo koy tooñ xamoo ki ngay tooñ kan la waaye yàlla di leen ni àtte saa su ne te hmm. loola ma ngay am ndaxte ñu ngi koy gis de bés bu ne am na ñu toog ci cent mètres gee hmm. mag ñaa leen fa dugal dëgg maa la ko wax fii man maa la ko wax de na am na ñu toog ci cent mètres mag ñaa fa dugal moo tax ma ni la baaraam. Mhm. da nga ko dur ci bët boo xam ni da yaakaar ni bët la fekk du bët. na bët sa bët bi nga ko roofte te yëgoo ko. Mhm. moo tax bu kenn di wax luy xajamal sa gémmiñ baa luy lëndamal say bët. bu ko kenn wax. Mhm. moo tax lu mën a xew ci àdduna ba nit ñiy wax lu ñuy wax ci seen kilifa yi lu nu mer mer mer orma. yàlla yàllaa njëkk a ormaal ñëpp nag. moo tax sëriñ bi. Mhm. li tax ma ni la si xalifa général bi naa ci wax. Mhm. dama seetaan bërka démb sama jigéen moo ma ko yónnee benn video boo xam ni sëriñ Babacar Sy Mansour laa dégg mu wax jenn wax joo xam ni. Mhm. bu nu ko doon féeri fii ba ay at. du jeex wax ji jeex. <laughs> xam nga lu mu wax. dafa ni na ngeen ma baal àq. ñëpp ni tekk mu ni na ngeen ma baal àq. rawatina koo xam ne hmm. mas nga ma wan gannaaw rek ma yëkkati sama bët bi xool la ma tax ma yëkkati sama bët bi teg ko sa yow déglul wax ji de ma yëkkati sama bët bi la wax de hmm. moom waxul sax pour ma wax la hmm. waxul pour ma yàq der waxul pour dara de dafa ne ma sama bët bi rek xool la ndeysaan am na xoolay jurlu ne xam nga waxagul xalaat ga de mu wax ko sëriñ bi ba yëkkat man sama àdduna ji tukki foofu ndax bu dee dëgg laa lay wax mhm. ndax xam nga lu tax mooy ki toogoon yaakaar ni sëriñ bi xelam newul ci lii sama àdduna ji tukki ni lii mu nuy wax moom ca daara ja la toog mooy c'est-à-dire mooy toog na ci université bi joxe na leçon boo xam ni boo xam ni ñépp ci war a jàngat ni waaw sëriñ bi bu dee xool bi lay xool bi moo waral mu yegg fii mu yegg ak boromam ci wax ko ci publiquement mhm. ci ninu ko yaay xalifa général mhm. yi yow de sëriñ bi yaakaar na la sax tey ak ëllëg moo tax jàngale na fa de lu leer jàngale na fa mhm. jàngale na fa ni aljana da nga koy liggéey des koo am jàngale na fa tooñ du dëgg jàngale na fa nit du lu la neex def jàngale na ko fa moo tax ma ni la sëriñ bi gis nga bi mu waxee loolu sama xel mi dafa sore nag. yaaye. xam nga loolu lan moo tax. Hmm. bu ko waxoon nii rek. Hmm. ni nu xëy na dafa am ku sànni ay wax. Hmm. sëriñ bi di dellooy wax. waaye mag kilifa. wax ba yëkkat. te sëriñ bi. muy kilifa goo xam ni la mu yanu yombul yombul. <laughs> yombul. loolu bi mu amee. dama ci jàng déglu vidéo bi ñetti yoon nag. sama rangoon ñu want man nag ma am ci njàngat man te di ñaan yàlla it na ci ñépp am njàngat mooy nit waroo xool ci nit bay xalaat ci moom waxuma la wax ci moom de mhm. bay xalaat ci moom rawatina nag di wax ci moom loo xam ni nit ña daan ko daw baa daanu ko moytu ngir intérêt personnel boo xam ni xamoo intérêt boobu lum lay jural ëllëg mhm. sëriñ bi jàngal loolu waaye man day maa ngi delloo hmm. di ko xamal ni hmm. bu dee si Malick ñun day mas nanu sànni bëtam boobu ñun day jéggal nanu ko waaye ñu ngi koy ñaanil moom mu jéggal nu hmm. ndax xëy na mas nanu sax xalaat sunu xel yi loo xam ni la muy jéggalu moom man nanu dal ñun waaye xam naa ni loolee am na ñeneen ñu koy jé ñu koy jéggaloo li tax nag ma ni wax jooju dafa ma touché Serigne Abdoul Aziz moomu Bintu Touré. te mhm. ture dama mas a toog fii. Mhm. fajar cinq heures du matin. Mhm. ma xool vidéo bu muy wax jenn wax ju doy ju doy mu ni nit ñi jaamu ji leen yàlla. nit ñu topp ji leen yàlla. man day Abdoul Aziz maa ngi xalaat bis boo xam ni yeew nan ma takka nan ma sànga nan ma sànga nan ma man Abdoul Aziz ba nu dugal ma ci sama bàmmeel ngeen wan ma gannaaw dem ba nu fëgg ma ni ma abdul Aziz kaay tey danga war a jàkkaarlook sa borom. nee na loolu rek man Abdoul Aziz laay imaginer su ma yeggee lu ma lan ba yaa gis yàlla teddam gaag màggam gaag leeram ga na mu ko waxee sax moo gën a jube ni ma koy nettalee. Mm-hmm. tàggam ga xanaa xamoo ne bi mu waxoo lool bi mu taata pare dafa mel ni man dan maa fël sama diggu lal bi. dama daanu carrément. sëriñ bi xam mm-hmm. nga lu tax mooy xoolal koo xam ni. ñëwoo lu dul ceeb daara te yaa ngi ñaan yàlla sa dund gépp lekk loo leew yow loolu ngay ñaan yàlla ndax am na yoo xam ni nag nit ku xalaatul foofu wala nit ku dundewul noonu mënoo waxe wax ju tol noonu ba muy jëng-jëng ci xel te li gën a tax nga xam ni wax ju doy waar na bi mu koy wax ci jàkka toog xaw ma si jumaa xaw ma ci daara ñi fi néewoon genn wàll gu ci bari ñu ngi daanu xam nga wax jooju kon wa waaye fatut. Mm, mm, déedéet. xam nga. wax jooju man soke woon na ma soke carrément ba sama Facebook boo ci duggee. Mm-hmm. moom kesee ca ne nag foofu. ci gàttal. Mm-hmm. bu dee vidéo mhm. moom kese moo ci ne ñaareelu wax ji mooy bu sëriñ bii ma déglu mhm. di ñaanal nag sunu xalifa général yi mhm. yal na yàlla guddal seen fan yal na leen yàlla suturaal yal yàlla taxaw di dénkaat ndaw ñi ni leen na nuy ormaal kilifa yi ndax léeg-léeg ma digg ci internet yi nuy wax kilifa yi wax yoo xam ni hmm. man de ñoo ma ëpp fit de <laughs> te billaahi duma ragal waaye ñemewuma lool de hmm. xalaatuma ko it nag hmm. te su ma ko defoon ni su ma tëddee samay waajur gént ma ne ma wàcce nga yoon wa xalaatuma ko moo tax nag ñëpp a yamoon mhm. bu ñëpp a yamoon foo dégg ni diw am na milliard nga dégg ka ca des am na milliard nit ñi mënunu fexe ba yam mhm. nanu bàyyi loolu nit ñi yamunu yàlla bind ay jaamam te yamunu mhm. waa ñëpp a bu ñëpp a yemoon. am ñu xeb seen nawetu Sénégal <laughs> mooy na nawetu feneen. <laughs> nu bàyyi loolu. xam nga lan moo fi ne. Mm-hmm. wegante. Mm-hmm. cërante. Mm-hmm. bàyyante xel. te ormal ki yàlla ormal te yàlla ñëpp la jox ormal. kenn amul sañ-sañu weer kenn. kenn nag amu ko moo tax sëriñ bi lii laa ni woon naa ko wax waaye seextaale li may wax pour ndaw ñi dégg ma ak mag ñi nga xam ni sax xam nanu li xew mooy mag ñi kenn du ñoom ci miim réew nag <laughs> mag ñi fu nu mas a dem bëgg nañ leen xoolal Serigne Mansour bu daan dem màkkatal mu karam nii xoolal li koy topp ci der bu weex mm-hmm. der bu weex mm-hmm. te sëtu Cheikh Sidil Hadji Malick la <laughs> waxaguma doom yee de mm-hmm. waxaguma moom ay waajuram sëtam la kon nga xam ni mag ñi seen al seen làmp yooyu dafa doy waar moo tax daal man man laa la wax. Mm-hmm. gëwuma lu dul mag ñi nag. ndeysaan yàgg man. waaw kay kon ni ko yàgg man waaw kay mi ngi noonu tubaarkal la waaw jërëjëf Cheikh Moustapha am na solo loolu wax dëgg yàlla te wax dëgg yàlla nee naa leen fi mu ne buñ naan buñ naan tey démb a waral mhm. ñu naan tey mhm. te buñ nee démb ne mag ñi mhm. kon defe naa ne li ñu war a bàyyee xel mag ñi wax dëgg yàlla du jeex du xaaj te wax dëgg yàlla te kenn ku ci ne wax nga ko koo xamante ni c'est téeméeri at la ñuy féete mu mel ni tey nga fi nekk ba tey ah, yaa kon kooke am na cër ci suñu borom am na la ko suñu borom cëraleel ginnaaw cër bi mu am am na leneen lu ko suñu borom cëraleel ba mu mën fee nekk ba tey jii nii mhm. kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mhm. waaye fi nga jeexalee rek mhm. fa laa bëgg a fa laa bëgg dugg see muy ndaw ñi dangay ngay dugg ci réseaux sociaux yi lu ne ngay gis waaw réseaux sociaux yi tax na ba tey bëri na ndaw ñoo xam ne ci réew mi ci réseaux sociaux yi la ñu référé wu biñ ci référé woo mooy ñi ngi ciy jàngat waaye jàngatuñ ci lu leen jëriñ waaye lu leen lor ciy jàng ndax bu xoolee tey jii juróomi juróomi xale yu jigéen. Mm-hmm. di ay élèves. Mm-hmm. woote ne dañuy def seenu mbaxal. Mm-hmm. mbaxal moo xam ne bañ leen fa fekkee defe naa ne ñaar fukki cornetu yàmbaa lañ leen fekkee ak ñoom. ba jël leen teg ci nugu siin gii. kon defe naa ne ñooñu lañ doon seet. ci réseaux sociaux yi. ba gis ko. bokkul ak li ñu waxtaan waxtaanee muy li fi mag ñi ba waaw ban gis-gis ban tolluwaay ak tey ji fan la réew mi toll ak ndaw ñi. seex taala àdduna bii nu toll. ñaar rekk am nu yar la baa nga jéema yar sa bopp baa yàlla yaral la boppam ñett yi rekk am mm-hmm. nga bàyyi xel ni mm-hmm. réseau yooyu mm-hmm. sëriñ bi xaymaal xaymaal ci at yuy weesu ci gannaaw yu bare ñu ngi koy jàmbat daawul am nag <laughs> xoolal loolu ni naan enzyme enzyme est xam nga ni ni léegi la mel nii mu mel est-ce que xam nga lu ko waral damay jënd sama hamburger fële ni dama koy lekk ca internet ba mhm, <laughs> <laughs> yaa ngi koy def waaye da nga xam ni suba yow yaay hamburger bi wallaay lu leen ngay wax <laughs> ay caaxaan lañ ko jàppe nag wallaay ndeysaan nga koy wax nit léeg-léeg toog naa réseaux sociaux amul benn problème te ay doomam du ca dem. Hmm. damay déglu internet nag. Hmm. waaw. ah waaw. kay wax loolu day sacrifice doomi jaamur. ndax hmm. doomam du ca dem. du ca dem man wér na ma moom. te moom ma cay dem dafa geetaru te am na fum mu ca yem ndax am na lum ca sañul def ndax nee naa la ku ci yiw mm-hmm. di ca wax lu yiw mm-hmm. di ca def lu yiw di ca defe anam bu yiw ñun amoonu jafe-jafe lu dul sant la gërëm la mm-hmm. waaye nag njaboot yàlla lay nattu ci njaboot njaboot gu manti doon su baaxee danga war a danga ko war a dimbali su baaxul it danga ko war a dimbali ndax li nga ko yéene mooy feeñ ci sa njaboot <laughs> te man nee naa la sëriñ bi mbiru mbumbaay du tax may wax lu dul dëgg ak ngir bëgg nit ñi faama leer ne la li ngay wax gëmoo ci dara mhm. man new ma ci yooyu mhm. sëriñ bi dama bëgg a wax ni xale yooyee ñooñ lañu jàpp mhm. waaye est-ce xam nga ni am appartement meublé bu doxee est-ce que xam nga ni élèves yi jàngi la est-ce que do xam nga ko hmm. appartement meublé location journée su doxee. xale yi jàngi la xale yii ni naan dañuy jàngi déggal wax ji de. Mhm. xale yi ni naan dañuy jàngi de. Mhm. xale yi nu wax ni ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy signalé gos jàdd. Dóor waar. ce que xam nga ni ñoom la. wallaahi. ndax ëpp am nañ ci doole. Mhm. te ki nga xam ni moom dafay yàqu ba lu mu laal mu yàqu mooy fekk nit ku yàquwul muy naan xel mi. diggoo xel mi diggoo xel mi ba détourné ko bu njëkk lu bare pour nga daan ko gis day jafe mhm. jigéen juy tox mhm. cigarette sax mhm. jigéen cigarette da ko daan ëf rek mu daal di taf bakkane di bëgg deeg bopp buy metti wallaahi yàmbaaj <laughs> sàngara ak doos bi ni mu toll nga ko mën ko jël <laughs> te yëgoo ni jël nga ba nu jël si la hmm. ah loolu dafa garaaw trop léegi nag sëriñ bi fan la lan mooy problème bi la waajur yi la mhm. wala njaboot gi la hmm. <laughs> problème bi yëpp foofu la waaw Cheikh Talla mhm. kuy jàngiloo sa doom war nga yor seen emploi du temps bi ci njëkk waroo ko xamal ni naa ñëw seen école ñaareel bi ci tegu sax ki koy jàngal war nga xool ba xam ndax complice am déet mhm. ndax léegi nag élèves yi kooba am na waaye it. ay professeurs kooba it am na. du fi jeex. boobaa nag képp ku ca doonul kooba doo ca mer boo ca meree na kooba. kooba nga lu leer ngay wax. <laughs> te lan mooy lan moo waral wax jooju mooy dangay gis xale. di sol solu gu bon yow mu nga woo ko ni ko kaay ba mu ñëw nga naan ko tey li nga sol rafet na te nga waroon ni ko baaxut mu njëkk école looloo fi daanam lu boo solee lu normal ni la wa génnat amatut te moo war a waraloon ñuy sol uniforme yi blouse yeeg yoon yëpp nag ba mu demee ba yegg ni nu am na école yoo xam ni soo muuroo doo fa dugg la nu xam ni kon yaa problème ci fépp mm, mm. <laughs> lool nag sëriñ bi mu doon loo xam ni ñun dañoo ne amul solo di wax ci yoo xam ni amul solo mhm. yooyu waral ay yeneeni fitna di am yeneen i musiba di am yeneen i jafe di am ñu nu garaawut tey jii man maa la ko wax booy wax sax dëgg nii nii nii pour nu ràndal la pousse la nii dafa yomb torop mhm. ndax intéressé woo leen mhm. ñoom xam nga lu leen intéressé sànni tànk ak tànk kii di wax ni kax-kexi koo ci laaj yàlla ak yeneen te bi lan la baa waxtu julli wi jot nu yëgul ni sax ni mi ngi fi du garaaw tey nag mhm. <laughs> te nit ñi yaakaar nañu alaxira lay garaaw déetéet du fa yegg sax boroom kër gee toog ay jamono jooy rek lay def mhm. jooy rek lan ngay jooy njaboot gi nga xam ni moo leen waroon formé ba kenn bu tëddoon ci lalam boobu téeméeri at tawan kenn sañu ci fàtteefu waxtu julli kenn sañu ci def naka su dul noonu kenn sañu ci imaginer léegi xale yu jigéen ñi dañuy dem ci dañuy dem ci àll bi de ah ay fan di soo koy ñëw ay fan laa la waxuma la benn fan di ay fan sans autorisation nag loolu gën a dee nag moom sans autorisation mhm. kon nag yooyu noonu dana jur yeneen seextaala mhm. te dara baaxu ci dara baaxu ci waaye daal ku bëgg sa njaboot régler nit tekk dal am jàmm mhm. ah am na solution seextaala waaye lii doxul de te ndegam nii lay demee dana dem ba ak jamono kuy jur doom danga ko seetaan te dana dem ba jamono mënatuñu xàmmee doom ak ndey ak baayam mhm. ndax xamatoo ku war a wax ak moroomam pour mu dégg mhm. te loolu dafay garaaw seex taala te ñu ngi ci toll nag dëggantaan yàlla na yàlla doy sutura allahumma amin yaa rabbil alamin beneen bi itam fii ne moom euh, dafay daal di demaat ci ndaw ñi mhm. li tax may ni ñaari yoon ci ndaw ñi damaa gis nga féetewoo leen waaw sumay xarit la ñu doon say xarit waaw waaw ma yaakaar ne boo waxee dinañ la déglu am na ñu ma ci woo. ndax la ci bàyyi xel dafa bëri lool. ne ma am na lu bare lu ñuy changé. wallaahi yàlla xam na ko. waaye bu ma bu ma jógee ci élèves yu jigéen yi. Mhm. damay dem ci élèves yu góor yi fii ci Yoff gii ci sa ginnaaw. waaw fukki xale yu góor ak juróom-benn fukki mhm. élèves ak juróom-benn. Mhm. war a dem vacances. jàpp kalaas yañ doon jàngee. dajji palanteer ya dajji bunt ya damm taabalee defi lépp ba journal télévisé lañ leen mujj a wane ba jàpp nañ leen ñoom ñëpp ñu ngi ci ndungu seen gi ñu tey di xaar seen est-ce que tey. responsabilité parent yi la muy li nga laaj léegi. bu baax est-ce que responsabilité ñoom ndaw ñi la. wala est-ce que tey responsabilité partagée la entre état. ak ndaw ñi ak parent yi. xam nga sëriñ bi état am na ci yoon. Hmm. parent yi am nañ ci yoon. Hmm. ñoom ñoo ko def sax ak seenu yoon. seetaan. Hmm. xanaa xamoo ni ku ko bañ jàng. da ngay def looy tax ba dootoo dugg ci école bi man nag su ma doon jàngalekat ni mhm. duma la ci duma la forcé duma déedéet non pas forcé de mhm. la ngay bañ dama koy xam ba pare wëlbatiku gën la ciy dëgër bopp waaye say parents jàppale la ci mooy lan mooy mhm. xale yi bu nu bëggatul jàng ñoom dàq la ni xam nga loolu mooy leetaru démissionné laa bëgg yooyu ni def noonu mooy bëggatuma jàngaman mooy man njàng mi neexatuma waa léegi sëriñ bi njàng la neexatul taabal ji nga damm boo ci toogul sa morom toog ci pour lan <laughs> njàng mi neexatu la lan moo war a imaginer xoolal mbir vagabond yooyu mooy lan caatu mbiri vagabond la waa léegi nag xam nga lu ko waral mhm. danoo xool ba xam ni lii bu nu ko defee dara du leen ci fekk mhm. ndax ndungu sin fukki fan ak juróom loolu jeexalul coow li mhm. bu doon xale bu ko def taabal ji nga teb ba nu tàppa tàppal la ta état état autorise leen nag <laughs> autorisé leen di leen ku dugg ci église yàq nanu la tàppa tàppal ku ko dugg ci école yàq yaa xam fa ngay jàngeem déet nan la tàppa tàppal képp ku dugg ci wàllu jàngukaay bu manti doon ba ci jàkk sax nan la tàppa tàppal kon hmm. booy yàq danga ko xoolaat waaye lii moo ci gën a néew élève buy jàngi dugal ci poosam yàmbaa yàmbaa ji du wax nga ko sànq xam nga te nee naa la xam nga góor ñee yàq tey jàppal ni suba jigéen ñee yàq waaye nag parents la sëriñ bi manuma la ngénti couche la laaxal la ceebal la barke Seydunaa Muhammad manoo ma të barke yeneen të billaahi manoo ma të manoo ko manoo ma të di bu ma mënatul woon ci yow dara dama lay jàpp yóbbu la ba gendarmerie ba ba police bu hmm. <laughs> ñu mënul dara ma fay ay ponkal ni leen ñu santuma leen dara santuma leen dara kii sama doom la daf ma nar a weer naa leen fay taa ko wax ji de ah mhm. man day man xam naan daan ma mere waaye man man man loolu laa gëm mhm. mooy njaboot ndax lii problème mooy suba la mhm. suba la atte bi waxi yàlla dafa foor coow li du coow lu xale bi mu ne ci lu ko neex mu demee ba am dix-huit ans vingt ans nag wax dëgg yàlla ni yàlla nee na la déet booba bàyyi ma ak moom nag <laughs> bàyyi ma nag ak moom nag waaw kon nag sëriñ bi lu mën a xew si àdduna responsabilité yooyu mooy li ko waral Seex Taala loolu garaawal am na lu gën a garaaw lu yëjji oto xale sa ndey yëgul sa baay yëgul ngay karan karang ba tëmbal ko ci po dee dem faatu fa yàllaaw ni nu loolu garaawut hmm. tan waroon ci artuwaat suñu njaboot ni leen ni kat lii du dëgg du yoon waaye waajur yi léegi xaw ma dëkk bu metti bi la am na sax nag ñuy daw moom ndax ñun ñi xam nañ si dara mm-hmm. ñoo xam ni lu ñu yor def ko si seen njaboot am na mm-hmm. waaye bàyyil xel ni ay nit dañuy jële ay nit ci réew ak réew di ma ko indil ci réew ak réew nag di ma mm-hmm. ko indil <laughs> kon yemul ci réew mi rek ah déedéet man sëriñ bi man man xoolal dañ naan ma niw nit ñëw na moo ay aéroport ba tàmbali jàng samay yaasin ñu dul jeex barki muhammadu rasulillahi booy dem danu naan du kii la mhm. ah, am na lu ngeen ca xam mhm. Mhm. te loolu ngeen yëg <laughs> waaw dëng nga lool te lool day waar lool te bitim réew kenn du fa laal ndaw waaw waaw wow foofoo gën a garaaw sax waaw di yor ay di ay nationalité yu doy waar waaw ah, waaw waaye yàlla di ma suturaal nag man mhm. di ma suturaal ndaxte dama naan su baaxee du man yàlla la mhm. te billaahi loolu laa gëm waaw te yàlla daf ma ciy suturaal mhm. moo tax mani la ragalunu lu dul yàlla ñun gëmunu lu dul yàlla gis nga ñaan lu mu manul amut nanu ñaanal sunu njaboot gi yàlla musal leen sàmm leen taxawu leen suturaal leen leneen amu fi ci àdduna wallaahi mi ngi noonu macha allah. Mm-hmm. am na solo loolu Cheikh Moustapha ci leeral boobu te wax dëgg yàlla li ngay wax ni am na ci luñ ci xam ndax fi la ñu fekk itam wax dëgg mm-hmm. yàlla te mm-hmm. nee naa fi ne waa gone réew mi ñooy bëgg a wane seen bopp waaye waa bitim réew ñoo gën a doy waar ndax koo xam ne day yoon nationalité américaine wala nationalité français wala nationalité espagnole mu leer ni foofa moom dafa am les droits de l'enfant nga xamante ni moom xale ci li nga fi mujjoon a wax. kilifa wala waajur bu toogee. doomam ju jigéen ñëw. bëgg a yor këram ndax heure bu ñëwee jox ko ñaari junni wala juróomi junni dépense. ba tëj làmmiñam. defe naa boo légee bu ko neexee bu génnee daal di dem def lu ko neex est-ce que kon doo du du irresponsabilité maanaam kilifa bi war a am jël responsabilité ci boppam. jël ko ci njabootam. moom moom matatul li matatul li mu doon. ba tax fi mu ne njabootam moom ëlbatiku doon te kilifay bopp parce que yow li nga wax léegi nii ñi ma yilif jur leen. waaw ngénte leen. toggal leen laax toggal leen ceeb mhm. di leen ngemb di leen couche mhm. fayal leenum njàng ba ñu toll ci benn niveau bu ñu ëlbati ko bëgg ëlbati bëgg a taxaw sa kaw bopp mu jar la leen li wóor na yàlla waaye ki nga xamante ni moom bu demee ba toll ci fenn fi mhm. ak njabootam ñooy ëlbati ko bëgg di ko jox dépasse naan kaan yaay jaaral nii wala bàyyi jaaral fii kon irresponsabilité dafay daal di taxaw foofu est-ce xam nga léeg-léeg waajur di sant doomam te doom ji dana xam ni sant ngi ko waajuram di sant nu ko jariñ dara xam nga ko sant koo xam ne yàlla amu ci. xam nga lu tax. Mm-hmm. boroom kër yi léegi danoo yor benn habitude ci ñeen ñi. Mm-hmm. mooy ku ci retraite ci sa service da ngay retraite sa njaboot. <laughs> yàlla ci sa njaboot mooy. Mm-hmm. yow léegi sa fonction bi nga jël mooy sa journal. lire journal añ bi pare nga añ. toppatoo wa dépasse la lijjanti woo kan mooy dégg papa kii moo fi ñëwoon démb nga nga wàccee say verre yi naan ka ah loo sant mbay suba mu dana indi faal suba dana indi jéey nga ni yow <laughs> retraité nga ndax ak xale bi moom moo géré kër gi mooy fay facture yi. <laughs> kalaasu Samba gi di ñëw ak a dem rek. non retraité. <laughs> yow da nga boole kaa yoo xamul ndax boole ñetti kaa. boole nga kaa. contact boole nga cas importé <laughs> boole nga cas communautaire yow boroom kër gi yow te yëgoo ko <laughs> massa kër ndax ku lijjanteetul sa njaboot lijjanteetoo sa bopp lijjanteetoo sa jabar sëriñ bi yaa ngi ci catastrophique koo xamut mm-hmm. boo xëyee dégg liir buy jooy ci kër gi bu laaj fan la jóge mm-hmm. bul ko laaj mm-hmm. te mi ngi am léegi nag sëriñ bi mag ñi danoo sonn ba ku leen aw dañuy jël ba talunu yenn yi loolu moom comprendre nañ ko mhm. xale bi di joxe dépense mhm. te yow mënoo xam fan lay jëlee fan lay yóbbee mhm. mi ngi am ba nu nag am eh, am na nag xale yu am jom yoo xam ni nag liggéey pardon nan ma baal liggéey jox seeni waajur yi mooy li leen yitteel te wallahi day lew lool sax dagan lool jaar yoon lool mhm. ñooña taxul niy wax mhm. góom bi la ñuy wax ak jàngoro ji mhm. xam nga léegi sëriñ bi loolee noonee mag ñi koy dund il faut solution di am te solution bi du dara mooy bàyyi xel sa njaboot seetaa la njaboot bul xoole ba mu jël la jël bu njëkk yow mi ko war a jël jël bu njëkk yow yaa koy jël jël bu njëkk ndax yàllaa la ko sante noonu nee naa la man sama baay. Mhm. naa la wax lu garaaw xam naa ne gaa ñi daanu ree ba dee. gis nga sam pap mhm. yar gu doy waar gis naa mu ko daan yar. yàlla ko mhm. yàlla yërëm taxaw ko est-ce que xam nga ni Cheikh Talla ñun bi nu amee fukki atak ñeent ba fukki at ak juróom terrain ba bu ñu daan dem di fond bali. <laughs> dégg timis jot. amul jàpp de. <laughs> xam nga timis ji daa gaaw. amul jàpp. am naa lu xoolal terrain ba. <laughs> bu matee un kilomètre. gis nga nan ma baax ci soxna su baax si daan sport ami Mbacke Thiam. ndeysaan yaa ko gën a gaaw. <laughs> man taamu ma sax bët bunta laay jaar. te du man kese de. te gis nga góor gi bu julli jee ba ñëw xam nga lu muy enquête. Mhm. ndax julli ngeen nga ni waaw. man la ban ilimaan a laa xoolal nga ni waaw. man la ban saar la tari. comme rojo jàkka ji man nga ci inspiré mu ne la waaw mu ne la bën yére la sol laa <laughs> nga ni waaw mu ne la ñaari ñaata nit ba xam sàppi kanam gi la wala da daw jóge ca téere ba rek ñëw ko ca gannaaw ndax naan dugg naa jàkk jeg mu ne la sàpp si si gannaaw moo fa taxawoon ilimaan ji da xoolal ilimaan ji man na bañ gàgg de mu ne la ilimaan ji ci lan la gàggoon wala ndax daa baax de wala dafa xam la te fekkati yu amut de. yow lay xool ndax yaa woon ci biir jumaa waaw gis nga léeg-léeg examen bi doo sax am un faf <laughs> balaa ngay yeggal taal na sa leex bi. allahu akbar ndax ilimaan bi day sol lu weex taal la nga naan. <laughs> lu bëla <laughs> lu bëla ah doo jàll waaw. non. mag ñi kenn du ñoom. billaahi sama waajur yi ma jur laa la wax de. nii la daan yare. yàlla xam na ko. mu doon loo xam ni yow. Mhm. dana danga tàyyeel fen da nga tàyyil wax loo gëmut danga nga tàyyil da nga tàyyil lii moo doon examen bi mhm. waaw parce que li lay laaj yëpp moo la ko gën a xam ba pare di la ko laaj xoolal léeg-léeg nag da lay question mu xam ni yow doo tontu mu la baax na waaye pare gudde mhm. mi ngi xaaraat beneen bu mu cay boole pour dossier bi gën a am doole am doole léegi mag ñi ci boppam xool loolu léegi sëriñ bi daan nañu def bu nu taxanee sàccaat say wi génnee ko <laughs> benn bis ma koy def fekk góor gi ne ci fi ni sàcc say bi <laughs> toog di la dama jël sayu mu delloowaat ma say bi <laughs> boobu laa gëj sàcc say <laughs> mat day waaw oh. kon mag ñi danoo doy waar oh. waaw nu jàngal nu nag loolu xam nga beneen bi danoo dox fenn dem guddi ji fekk ko ci robine bi ma mooy jàpp mu sëgg ma summi samay dàll tëmbal góor gi dee la waan man dàll yi <laughs> ma nga xam ni dugg naa mooy dee daal waaye man mi tey li samay daal te maa ngi ànd ak samay morom xam naa ni kaa bépp maa koy jël. nga xamee ne dàll yi. déet moom dana xam ni dàll yi ndax xam naa ne xool na ko ba pare delloo ma ko. la ko te moo ko jëndoon itam. waaw gis nga loolu sëriñ bi. Oh. mag ñi kenn du ñoom mag ñi wallaay ndeysaan oh. kenn du ñoom ci àdduna. Mhm. te ba loola amee laa gëj guddee ci àll. <laughs> ba mu sànnee sayu ba laa gëj a xaar sayu tooy te mag ñi doonoo doy waar nee naa dan daan naan la demal taxani nga takke ko caxat bu tooy ndax si la ne xam ne dem nga àll ba mm-hmm. <laughs> waaw ndax taxat gu woogee ci li kër gi la moom fi ma nga taxani woon démb la waaw mi ngi noonu moo tax sëriñ bi ndeysaan yàlla nañu yàlla fayal mag moo tax daal njaboot gi naqade woonu yar mm-hmm. xëy na système bi la am ñu mu réer mm-hmm. te système bi du xale bay bayal ko lu mu bëgg pour mu def xale dana am lu muy bëgg sax mu wax la ko nga nga gàntal ko xamal ko àdduna te mm-hmm. looluy dëgg waaye daal ndaw ñi suma xarit lanu waaye lenn rek laa leen di ñaan nu respecté leen bàyyi ndax la mag di gis xale du ko gis mukk mhm. mukk ci àdduna ndax bëti mag du bëti xale mhm. xolu mag du xolu xale xelu mag du xel du xelu xale mhm. bagaasi mag du bagaasi xale te ku bëgg mucc te xale bañ jégg cib xal mhm. il faut nga bàyyi xel aw mag mhm. te loolu mooy li am solo Cheikh Tall macha allah mi ngi noonu tubaarkàlla tubaarkàlla amati na mhm. solo Cheikh Moustapha wax dëgg yàlla man bi nga jujee sa waajur bi rek sama xel dafa dem ci sama bos dafa ñu daan tere football mës naa koo defe ji timis fekk ba ci yàlla ba wallaay bi may jéggi tali bi di ñibbisi seen oto muy ñibbisi. Mhm. may daw di njëkkanteeg moom buntu kër ga ca buntu kër ga la ma mbëkkee sama tànk dàmm. waaw man daf ma mbëkk wan ma mhm. ni ma rek mhm. bi angaar ba ca paal ko xam na foofa daan naa fa daw ba jumaa ja te jumaa ji jegewul. <laughs> Ah, ah, allahu akbar ji moom fu mu ko déggee. wallaay ndeysaan balaay gaañi di daaneel. maa ngi ñaq bay siit waaye nag na ma yàlla jéggal de. ci fukki atum juróom moom njàpp moom daaw ma ko def moom. dama naan fëras dugg ba pare xool nu may jéggaloo sama ba pare ndax lan mooy moom moom. li mu la sax lay laaj moom di nga ko ci tontu. kese te bu jaarul ci yoon fi moom xam na ni. fi mu kooku na ni la ni. te nag ba mu fa ba léegi sañatoo ko. ci àdduna macha allah xalaatatoo ko sa wallaay ndeysaan waaw wallaay kon loolu beneen affaire la wallaay dëgg na leen yàlla fayal te mm. tax ñu ci seen i barke te yokk seen i leer ca barsax ci daraje mm. Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mm. gannaaw biñ la nuyuwaatee tam bu baax a baax bëgg a waxtaane waat lii nga xam ni dañ ko dëgmal muy xew-xew bi nga xam ni moo lëmbe àdduna muy tabaski gi nga xamante ne wax dëgg yàlla tax na ba nit ñi kenn talatul dara ndax ren ji moom coow li bëri na Mali tëj ñay frontière am ki di raag ya ca topp ak yooyu yëpp xar seer na dëkk bi jaxasoo na ndax xeeti manifestation yeeg xeeti coow yeeg xeeti feebar yeeg xeeti xaru yeeg rey yu métti yi fi amoon wallaay ba tax daal fi mu ne nit ñëpp jaxasoo nañ ma bëggoon nga leeral ñu tuuti. ndoonte fan yi gis nañ oustaz Babacar Ndiaye. def ci waxtaan bu am solo jëm ci tabaski. jëm ci ki war a tabaski. waaye itam jëm ci lan mooy sunna yi ak farata yi. jëm ci tabaski. bëggoon tam yow it nga indil ñu tuuti ay leeral. ndax nee naa wax dëgg yàlla oustaz yi di ñu ngi leen di déglu. sëriñ si itam ñu ngi leen di déglu. Mhm. waaye plus particulièrement yow Cheikh Moustapha mhm. dama naan yow da nga am sa mbooloom bopp. Mhm. moo xamante ni wax dëgg yàlla foo teg sa baaraam bi. bu nu jógee ñoom it donte xam nañu jotiwuñ ko waaye dañ fay bëgg a teg seen baaraam. ndeysaan. te bëri na ci ñoo xam ne xëy na. ñu ne ci réewu tugal. Ah, waaw bi. ak fu mu ci mën a ne Afrique ak Europe. Ah, waaw nga xam ne li gën a métti rek fi ne mooy. it jot. nga waroon koo defandoog sa njaboot. wallaay surtout ñoom. mu fekk la feneen foo xam ne. daanaka daanaka ña nga fa nekkal da nga naan dama naan ñu naan laan yow loo wax. dëgg la nga xam ne dafa metti ci xol ci yëg-yëg. yàlla xam na dafa metti ci bëggoon a àndandoog say nawle say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm ak say doom ak say njaboot. Mhm. dem julli ji. Mhm. waaye mu fekk la nga ne foo xamante ni fi mu ne la ba lépp. Mhm. seen bëgg la. la ba yépp seen yitte la mhm. la la fa ba yëpp seen soxla la mooy dawoo dara du loo am ba ñëw terale leen ko bëggoon ngeen ni laal ñu ci tuuti ci wàllu xar mi ci wàllu sunna yi ci wàllu mhm. farata yi mhm. waaye itam ak ñoom ñooñu nga xam ne ña nga foofee ca feneen fu dul fii ci réew mi tam naka lañ war a waajalee tabaski gi ak naka lañ ko war a dundee itam macha allah rabbi Seex la ñoom day naa sawar wax ci ñoom ndax dama xam ci ñoom lu bare bare mooy ñi ni ci àll bi àll Seex ñoom daanu joxe ci tabaski bi ñii juróom benn fukki junni ñii téeméeri junni mm-hmm. ñii ay junniy junni mm-hmm. te ñoom duñu lekk mille francs fas am na ñoo xam ni sax boo maytuwul expecté ba nu toggoon démb <laughs> ba nee suba la tabaski moom la nu nar a añe tey mm-hmm. ndax lan talunu lu dul seenu njaboot <laughs> waa ki dund loolu Seex Taala mu jox la nga xeeb la mu la jox naan ko suma yére bi cent mille franc sama xar mi deux cent mille la war a doon te na soxna yit bàyyi xel àll bi neexatut ñoom nag ay gor lanu mënuñu ko wax de te xam naa ni xalaatuñu ko wax est-ce que xam nga am na ñu tëdd ci Europe gi ñoo xam ne liggéeyunu te seen ngor mayu leen nu wax seeni mbokk ni leen liggéeyunu xam naa ci dara yàlla xam na ni sag ak rek moom la ñuy dunde am naa sama xarit bi may waxtaanal démb rek. dëgg la juróom benn weer nee na juróom-ñeenti weer a ngi ni ci ren yoo xam ne xëyut de kenn kër. imagineel ni depuis rawatina bi feebar bi tàmbalee ba léegi ni mu tare ni mu mette ni mu doyewaar seextaan mhm. la xanaa xamoo ni jabar ni mu araame ci ñenn ñi te mu am ñu mu araamul am na ñu mu araam ak ñu mu am ñoo xam ne den xaw ma nu ma ko bëggee waxee ñu mu araam ak ñoo xam ñu mu ak ñu mu araamut mhm. loolu laa bëgg wax mhm. xam nga lo est-ce que xam nga ni loolu am na <laughs> xaw ma ko woon am na nag <laughs> tabaski it noonu la mhm. boo naree ñàkk ba ñu wax dëgg ba am xarum tabaski sama goro dafa dee sama doom daa feebar ba nu jox la fukki junni. Hmm. yoo jëndi am tabaski. Seydina Muhammad Rasul. waa tabaski boobu ban façon tabaski la. oh. fekk poosu jaamur. wala yow. nga taxaw fenn dajale ay ribaay jaamur ba tabaski jot nga ni da jëndal sa gorot xar danga nga jëndal sa jabar xar ay ribaa nag laa wax de. <laughs> kooku nag nanu ko delloo ñi nga xam ni dañuy dunde ger. <laughs> ñoo ko moom ay riba laa la wax de dajale ay riba yoo du jeex ba tabaski jot yow nga ne yaay yow danga koy jënde danga koy jënde tabaski loolu tabaski la waa yow mi fekk nattug jaamu nga tëbba ca njëgum njëg goo xam ne danga nga ko cay jël ni da koy aji màkk nu dénk la ay million sañoo ko boo ko defee xam nga ni amoo aju màkk tibbalaa la wax de. ba nga hmm. koy jël xam nga ne alal ji yaa ko géré waaye moomoo ko. Hmm. <laughs> alali ku nekk mi ngi ji. Hmm. waaw yow nga bëggug tabaski <laughs> yow nga bëggug tabaski baa nga bëgg jëndal sa mbokkum tabaski même sa jëkkër yor ay milliards boo dugaloon sa poos jël si cent mille francs jëndale ko kooku tabaski tooñ nga sa boppa tooñ nga ka nga koy jëndale tabaski loolu tabaski la moo tax léeg sëriñ bi wàjje yi ñoo ëpp tabaski <laughs> ngay nag waaw ah, wàjje yi ñoo ëpp tabaski oh. ci ñàkk de mm-hmm. <laughs> bor ci ñàkk waaye yii ma la wax ni sëriñ bi yàlla waxewul noonu ndax bu doon noonu la waxe du du dem ba ca ganaar Mm-hmm. bu doon noonu la waxee du dem ba ca bëy mm-hmm. yàlla bu doon noon la waxee du dem ba ni nii <laughs> du ko def ah kon lu muy wut ci ganaar noo ko mën a amee baax na <laughs> man nag sëñ bi bu dee yàlla dani noo ko mën a amee baax na nag du ma fi xaar ganaar gu may kar mm-hmm. aw bëy baa xar laay kar ak nu ma ko mën xaare waaye waxewul noonu mi ngi dugal nit ci ndefal loo man lay kalifu laaw nafsan saa mi ngi dugal ci nit ni ko ni ah teguma la leen lenn li ndax ganaar manul cher nag cher cher cher ak lu ganaar ganaaroo xëy na am na ganaar yu cher waaye pour Tabaski mën la ganaar xam nga ni ganaaru vingt-cinq mille sax taxul ma may wax ganaar <laughs> kan moonu teg coono ko yàlla tegunu ko waaw waaw waaw sëriñ bi kon ñun <laughs> <laughs> ah kon ñun lii nu nekk kan moo nu ko moo tax mani la sëriñ bi lu waral nit léeg-léeg di yor loo mën a yore jabar te jabar joo yor mu dem xoolal li nga koy jox lu mu mm-hmm. <laughs> boo la lan moo tax nit mën a yor moyen di yóbbu say doom école yi gën a seet te xale bi mënul fexe ba am benn diplôme xoolal li nga koy fayal lan la <laughs> ah ah loolay mbir mi nag waaw am na yoo xam ni day rotolaat day rogolaat bokk mhm. ndax lii mbir mi mooy sëriñ bi yàlla sunu boroom moo doy te nee naa la seetaanam yépp am na angal am na koñ am na keppaar am na espace boppam boo ko fa yeggee dana la xamal ni may yàlla <laughs> moo tax sëriñ bi tëbaski yii nu gis léegi xanaa xamoo di tëbaski rekk sa xel newatul sa xel newatul ci sa yàllaa tax may tëbaski waaye sama jabar ji su ma ko jëndalul lii su ma ko niiwul naa su ma ko niiwul na le mën na yàq sa yoolu tëbaski moo tax yow mi nu ëndal xar mu ndaw mu jaral la takk say bagaas noo déggoo sunna te xamoo sunna na sa jëkkër yor ay milliards billaay bu la yéenee xar moomu téye ko mm-hmm. balaay dewan yàlla jox la njaboot goo xam ni dootoo tal naan sa jëkkër xar mi <laughs> ndax xar moomu am na lu may xaar moo tax sëriñ bi danga laaj lu am solo waxaguma la bagage yi tëbaski de mm-hmm. ak doy waaru tëbaski ak li ne ciy tëbaski ak liy sekk rey tëbaski mm-hmm. Cheikh Talla nee naa la buumu xaru tëbëski rek buumu xaru tabaski ci boppam rekk am na lu ci nit di def ci àdduna <laughs> beneen affaire la buumu xar bi rekk jàngoro yi muy faj moom manuma la wax nu mu toll moom jàngoro yi waaye ci kaw ci kaw ban tànk la nu ko yeewoon <laughs> hmm. Hmm. waaw xanaa xamoo am na nu nuy yeewe xar ci baat nga fekk béjjën bi lonku nga duggaat ñëwaat fekkaat béjjën ba bum am fu mu fa lonku nga duggaat génnaat fekkaat béjjën ba am mu fa nee naa la da nga dund ba dee kenn du xam soxlay dépense <laughs> dund ba dee kenn du xam soxlay dépense doo taxaw kenn ni ko alma dépense ci béjjënam bu lonku ci buum bi rek ñetti yoo xam ni da ngay xar mi buum bi lonku ay booy jël buum boobu waa xexaa nga toog di la xaar foofu moo tax sëriñ bi man daal xawma lan yàlla moo amul yërmande mhm. man daal xamuma ko sama aqullaahi taala mhm. te sëriñ bi xanaa xamoo tabaski luñ ci wax nit war na ko gëm ndaxte doomi aadama lañu ko weccee ay bu xar amul woon taaw yi ko fiy des mhm. man caat sax dem naa bu yàgg. waaw waaw lay waxati <laughs> gi nii rek. waaw ah. xaw ma sàmm bu taaw yi jeexee caat ah, man de xaw ma sàmba taaw la am déedéet waaye xam naa ni kon mu doon caat la sax war na dem ah <laughs> ñëppay dem. ah <laughs> boo jëlee taaw lu fay des. Ah, xaw ko topp ca taaw ba ah, caat mujj ñëw léegi nag yooyu noonu si àdduna moo fi am. sëriñ bi moo tax yàlla moom soxlawul lu sakkan li lu lew li la soxla. <laughs> loolu léew li nag mooy problème nag sëñ Moustapha lu sakkan li da nga laal fu garaw foo xamante ni man fi ne boo xoolee sama tekk gi sax nga xam ne am na loolu laal loo xam ne dama cee teg sama bët démb ah bi nit ko woo nit sama kanam wax ko soxla mm-hmm. nit ka yëkkati xaalis yónnee ko ci saa si sama kanam ma di ci teg sama bët waaw mu jël xaalis ba jënd ji am xar waa nee naa la <laughs> man moom laay xalaat ni moom amul tabaski moom. wàjj laa. <laughs> ah nee naa la kay <laughs> man yow ci foofu nga ma yóbbu lépp luy yëngal aras. araam na ci jëfi yàlla jumu ni dafa dagan. lépp luy yëngal aras. <laughs> araam na ci jëfi yàlla jumu wax ni dafa dagan. lépp lu yëngal aras tan tan dañu wax ne ne fenn day yëngal aras mm-hmm. moo tax sëriñ bi képp kuy jigéen te bañ sa doom di doon ku dul wax dëgg baa di jël alali jàmm bul faral di tàmm di wax loo xam ni lii du dëgg ngir loo am bul ko def bul ko def sa boroom kër bul ko def keneen hmm. wax ko dëgg bu ko mayut yàlla dana la ci dimbali <laughs> bu dee keneen nit wax ko ko ndax boo ko waxee rek dafay mel ni danga jombale yàlla ni war na mën a faj sa aajo ji moo tax mani la xam nga gaañ yi léeg-léeg nu laaj ci xarum tabaski moo tax maa ngi ziar sunu imaam bi sunu ustaas bu baax bi mhm. ku tedd ki nga xam ni si moom ci wàllu boppam yërmande rek lay waxee mhm. mooy ustaas Babacar yal na yàlla guddal fanam te dolli ko wér ak mhm. sutura sëriñ bi lii nag mooy kaa bi nag xaar mu rëy mi doonagul kaa bi de <laughs> ñaata béjjën la war a am doonagul kaa bi de day damm ak ki kii du kaa bi de déedéet <laughs> waaye fu mu jëlee lam ko jënde ok te ku wéet ko ni wéttali ko loolu muy mbir mi nag wax ji lépp lool la ci àdduna sëriñ bi loolu nag moo garaaw <laughs> moo tax man la wàjje yi ñoo gën a bari tabaski yi mm-hmm. moo tax ah <laughs> loolu nag dem na ba ci aji màkk yi léeg-léeg nit jël palaasu koo xam ni bu aji woon am aj mm-hmm. moom dem xam nga dem ak defi du benn <laughs> waaw waaw moo tax sëriñ bi lii nag mooy mbir yi nag doon directeur societé yore quinze personnes yoo xam ni ñi ngi lay toppee cent mille francs yoo leen waroon yoreel weer yoo xam ni danga leen dàq tegoo ko ci fenn nga yóbbu juróom ñaar fukki nit xam nga ni ni loolee noonee bu ko yàlla àttee doo am dara mhm. te ku xam loola def nga ko te waxu waxula dëgg ba nga koy jox paasu màkk sax du am màkk ci gàttal mhm. moo tax demu màkk lenn doy ma ci xul sadaqallaahu fatibaa millata ibrahima hanifan wa makaana loolu biyee màkk la ku koy jàng am biyee te bu lew ngay am bu lew lii ma la wax nii day jënd biyee day maye biyee wanteer billet. seetaa la lay jox billet nee naa la ba la ca gën néew ñaar la. lii ma wax nii ma jàng léegi. day may billet màkk. billet màkk waaw. moo tax ma ni la kon nit. lu nekk li ñuy teg sa loxo xamal lu doon. am na lim wala. waaw wow amul lim. bu mm-hmm. xëyal rek di ko jàng suba baa ngoon. xul sadaqallahu fatiba millata ibrahima hanifan ma kaana minal musrikin nga ni mm-hmm. inna awalal bayt wudia linnaasi lazi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamin fihi ayatun baynan maqaam ibrahim mm-hmm. ibrahim te kese <laughs> waaye maqaam ibrahim ma demee ba yegg ci walilaay xala naa si xajjul bayti jooju fa la sécuriser ne nag <laughs> foofu la sécuriser ne nag moo tax sëriñ bi nee naa la sunu njaboot gi mën nañ leen ni nàndal ba lu bëgg dem ci àdduna bi dem si te nee naa la lii ma la wax ni bu na ko nit di jàng nga jàngal ko di ko sexal sa njaboot est-ce que xam nga ne ni xaw ma lan lan naan dañ leen koy jàngal pour nu te ko xam waaye alxuraan bokk ci est-ce xam nga loolu téeméeri saara fukk ak ñeent yi mën nañu koy jàng ci âge yu gàtt te dañ koy mokkal sëriñ bi ba nu naan lii du jàmm lii ma la jàngal léegi laa la wax te lem rek nga koy booleel sa baaraamu sànqarañ nga naan diw ŋaangal bu dee xale la sax su manul ŋaang fexeel ba taxal ko ji bu ko meleste koo jeex na lu mu gis ci alxuraan da koy xam maa maye loolu allahu akbar waaw <laughs> ah. yàllaa yaatu. wallaay ndeysaan te jeexalul dara. te bagaas yi yàlla kenn waxatu ko. Mhm. <laughs> kese moo tax xaru njariñu tëbaski kenn mënul xayma nu mu toll. Mhm. <laughs> tëbaski laa la mhm. njariñam kenn mënul xay nu mu toll. waaw. njariñu tëbaski kenn mënul xam waxaguma la wextaan. waxaguma la ko de. waxaguma la béjjën ya waxaguma la geen nga waaw geen nga waxaguma la ko moom waaw waxaguma la ko te génnu xaru tabaski ak saabum néew foo ko waxee ci biir kër suul ko fa sëriñ bi nee naa la kenn du fa dee deewu mbetteel allahu kenn du ko fa dee génnu xaru ak saabum waaw ak saabum néew nga suul ko ci penku kër gi deewu mbetteel du fa am waaw kenn du fa tëdd tawat yoo xam ne dañ naan am na juróomi at ci geneen kër mu fa nga koy dégg waaye doo ko dégg foofu hmm? moo tax sëriñ bi waaw te juróom-ñaari inna anzalnaahu lay àndal <laughs> waaw bu la toyatul nga def si sa ñetti wa samay wa taarixi pare gu ma de dama maye lool rek <laughs> yam ca waaw <laughs> ah, moo tax sëriñ bi non xam-xam mhm. beneen affaire la mu tax bagage yi tëbaski ku yàlla dimbali nga fekki ko wallaay boo ko xamee dëgg sa tëbaski passé dangay ngay woor sant ko yàlla kese ci àdduna sëriñ ah, moo tax xar yépp xari yàlla la waaye xarum tabaski moo gën a neex yàlla ndax si la nattoo woon sunu maam Ibrahima moo tax mi ngi noonu sëriñ macha waaye fenn ci tabaski ngir am xar ngir am xartum déedéet fitna la lay jural te xanaa xamoo ni boo ko ci defee ba am ko balaay weer wa di jeex ki ko defe woon gàcceel la ndax da koy xame ci xamin wu doy waar te élan bi yàlla may ci tabaski dafa yaatu ba hmm. ñetti fan hmm. ah ñetti mbir la <laughs> <laughs> macha allah. ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw Bienvenue sur Salam Vision.